nationale soriwul Ama Baldé moom euh, ma ngay euh, këram daal di wutali fi nga xam moo di arène nationale ko neexoon sax daagu dem waaye pour des raisons de sécurité ñàkkul ni dana ànd li nga xamante moo di gàngooram dans di ay supporters li nga xamante moo a jóg moo di xarañ lo waaye loolu mënta yomb kon boog apulaay bu fekkante ne ni mën nañoo dem ca Pikine euh, fekki li nga xamante moo di le départ de Ama Baldé moom mi nga xamante dana daal kon boog jubal nationale. Diop voilà mi ngi noonu donc le décor est campé ni ñu koy waxee parce que gis nañu déjà euh, le départ donc euh, de Ama Baldé di wutali li nga xam te moo di arène nationale euh, sous la complicité de Apoulaye moom mi nga xam moom moo féete ci wàllu bi noonu itam lañ ko daal di defee daal di wutali tamit fi nga xam moo di Parcelles Assainies foofu la Modou Xarañ Lo di ay xibaar nag nee nañu moom mi nga xamante ni moo di Ama Baldé 16 lañ ko daal di kon bokk convoqué foofu la ci arène nationale kon bokk moom mooy jiitu Modou Lo on le voit déjà à l'image donc gis nañ ko mu ànd ak ñi nga xamante ni moo di euh, ñi mu gën a wóolu jamono gi ñu daal ko kon bokk boot ngir daal euh, bu nekk dafa fi nga xamante ni fa ngay euh, nationale ki nga xam bunt bi nga xam fa lay jaar ak ay supporteram dafa wuteeg bunt bi nga xamante ne foofu la Modou Lo war a jaar ak ay supporteram ngir kon bokk mën a dugg ci arène nationale lépp rek ngir mën a gérer lépp lu jëm ci wàllum lii di Euh, discipline beeg organisation beeg yooyu parce que xam ngeen ni làmb dafa am souvent euh, li nga xamante leen koy faral di leen ko euh, di leen ko coller comme quoi que ni y a beaucoup de violence et tout et tout mais itam un vrai un vrai vrai vrai amateur de lutte moo di ki nga xamante ni violence du ko indi ci li nga xamante moo di làmb donc nit ñi war nañoo mën a dem sañse ba.